saar wi day nettali ay xéewal yu yàlla xéewal na ko doomu aadama dana biral itam kàttanu yàlla dana wax ak mushrikoona yi ci seen pas-pas yu yàqu saar wi dana gaarlu lenn ci mashaahidi yowm alqiyaama ca mujj ak saar wa dana gaarlu ñi yëjji ak di weddi dana fa indi mbirum dee ak ni ñu war a laajee nit ñi yowmal qiyaam kon mel na ni mun naa tegu fii ndax niroo naag saaru xijari kon nag saar wi nekk na ci téeméeri aaya ak ñaar fukk ak juróom-ñetti aaya ataa amrullahi fala tastaajilu loola lu tax mu wax loolu ak lu ko indi <clears throat> muy lu ko taxe wàcc dañu ñëwoon ñoom mushrikoone yi di ko laaj si nag ne ko bés bu nekk rek yaa ngi xupp ci bés pénc ak tukkatal àddina dañoo bëgg na nga wax ñu loolu kañ lay doon yàlla nag tontu ci sixatul maadi waxut sax ne dana dikk li tax waxut dana dikk xanaa ne dikk na lépp lu nar a ñëw loolu yegsi na comme li nga xam ne noonu la noonu la ko borom shuara waxee ajaaratana ma faata laysa yaubu wa ma huwa aatin fi fi zamaani qaribu nee na lépp lu nar a ñëw ci àddina booy boo nga xam ne loolu teew na ba sot ndax dootul ñàkk moo tax yàlla ne ata dikk na bay sottal amrullaahi mbirum yàlla fala tastaajiluhu bu leen yàkkamti kooti subhaanahu sella ñeel na yàlla wa taala jomb na ama yushrikuuna ci lañ koy sàkkal morom yunazzilu yàlla mooy wàcce almalayika bi ruuxi ànd ak jibril min amrihi ci ndigalam ala man yashaau ci ku ko neex min ibaadi ci jaamam bu ñëwee jox ko yonent mu naan leen ananziru waar leen leen annahu luy mbir laa ilaa di benn buur illaa ana lu may man fattaquuni ragal leen ma xalaqa bind na mu samawaat wala ard ak suuf bil xaq ci dëgg taala jomb na ci yàlla ama yushrikuuna liñ koy sàkkal morom ndax moom xalaqa bind na mu al nit min fatin mu bàyyi ko ci toqent fa isa wa betteel mu nekk doomu aadama léegi nag xasimun ku mën a xuloo mu binun ku ku yaaji biir ji walla na naama juru kër gi it xalaqaa bind na ko yàlla lakum ñeel leen fiyaa nekk na ci dif un lu ñuy tàngalee aw yaram luy maanaa dif u boo lekkee ba regg saw yaram tàng boo jëlee leen bi leen bi boo ko jëlee ràbb ko sol ko mu tàngal sa yaram boo ko ràbbee xëyma dugg ci mu fajalab sedd kon fiha dif un ak tàng wa manafiun ay njëriñ a ngi ci wa minha kër gi itam takuloona ngeen di lekk seenu yàpp wala kum ñeen leen fiha ci juru kër gi jamaalun ab am ngeen cib taar di ko war xiina turixuuna waxtu wa waxtu wa da ngeen gont di dem di ci wàllu ngoon mooy turixuun waxiina tasraxuun waxtu wi ngeen di xëy ci suba it ñoom ngeen di war suba ak ngoon wa taxmilu jur gi mooy yenu asqaalakum seen yu diis ya ila baladin ngeen yóbbu ko ca dëkk boo xam ne bi nga xam ne weñ ñi daaw daawuñ ko yenu jur gi rekk fi nekkoon ngeen dem moom ba ci réew moo xam ne lam takoonoo nekku leen woon baalixiihi di way yegg fa الى بشق الانفس لماي تي بكن بوتيس ب سن دي بغا ген ناخ ينو دي دوخ جيم فو بكن دنا تي امو تيس لغي نك جورغي نين دي تك لالا ان ربكم نكسين برمي بروم مي ديف لولو لا راوف ناجي نيويت لا رحيم ناجي يرم لا والخيل فسي والبغال اك والحميره اك سفي يب لتركبوها ngir ngeen war len la ak mu nekk di taar wa yaxluqu bind na yàlla ma la taalamuuna lu ngeen xamut shafii werante nag sëriñam foofu yàlla xam ku ci am dëgg ndax sëriñam malik malik def ne fas ak baax la ak mbaam kenn du ko lekk dañ koy war rek ndax yàlla moo ne li tërkabuha loolu mooy layu malik shafi'i ne ko wante cosaan ci mbir moo di dagan feeg yax wàccu ca te gisuñ benn yax bu yàlla wax ne xurimat aleykumul xaylu wal bigaalu te it amul ci xadis amul beneen aaya te kon luy cosaan ci mbir moo di dagan kon mbir mi dagan na amaa mbaam sëf nag moom dafa am yax boo xam ne xadis la yonent bi ne xaraam na keroog xareb xaybar la waxoon ne yàlla xaraamal na tey nikaawul mutaati wa aklu luxumul xumuril insiyati loolu xadis la muttafaqun aley mu ne kon mbaam sëf moom ab yaxrot na ci waaye fas mile ak baax la mii maali xaw ma foo koy xaraamalee waaye du mën a sotti maaliki yee ne ñun ñu nit waxuñ ne dafa xaraam dañoo wax ne dañ ko dañ ko sib ndax yàlla def ne li tërka buuhaa shafii ne waaye lu ci indi wa zinatan war rek kay doy na waaye wa zinatan ak taar taarlu mu ne xam nga nit bu xiifee du rafetati kon da ngay lekk ba regg du lekk ca benn ba nga war ko booba ngay door a booba ngay booba lay door a baax loolu moo tax baax la ak fas ak lekkam ci mazhabul maliki yi dañ koo sib waaye buy ci mazhabu shafii kenn sibu ko booye boo nga seeti kitaabul umm li shafii ndax it lépp loo xam ne yàlla mooy xaraamal mooy daganal bu yax wàccut xaraamal mbir rek al aslu usul daf ne al aslu huwa al ibaaxa maalam yarit fii nassu bu nassu ñëwee nag mu door a xaraam kon nag amul benn yax bu xaraamal xaylu ak bi xaal makru indal malikiya gayru makru indal axarin wa alallaahi war na yàlla xasdu sabil jublu yoon wa mi naa nekk na ci jaayirun aji jëng ci yoon yooya walaw shaa bu ko neexoon laa daa ko mu jubal leen ajmaina mboole seen ma ngi ci xéewali yàlla jox doomu aadama mu ne waxuwa yàlla allazi mooy bur bi nga xam ne anzala wàccee na mina samaa yi jógee ci asamaan ndox la ko mu ñeel leen minhu nekk na ca sharaabun ak naan wa minhu ci moom it garab a nga ca yu muy màggal fii ci garab yooyu nag tusimuna ngeen di sàmm seeni jur yun bitu muy saxal lakum ñeen leen bii ca mbay ma bii ca ndox ma zara mbay wa zaytun ak olive wa naxil ak tàndarma wala anaab ak raisin wa min kulli tamaraat ak bépp meññet inna fi dalika aji nekk la ci kon loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yatafakkaruuna danañu xalaat wa saxara yàlla tàgg na lakum ñeel leen layla guddi wa naar ak bëccëg wa shams ak jant wal qamar weer wa nujum ak biddiw mu musaxaraatun lu ñu tàggat la bi amri yi ci ndigalal yàlla inna fi dalika aji nekk la ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yaqiluuna danañu am xel wa ma zaraa ak la bind na lakum ñeel leen filaar di ci suuf muxtalifan muy aji wuute alwaanu wa meloom inna fi dalika aji nekk la ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yadakkaruuna danañu waaru wa huwa yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne saxara tàggat na albaxra géej li taakuloo ngir ngeen lekk minu ci moom laxman yàpp tariyan wu di aji tooy wa tastaxrijoo ngeen di génne minu ci ndox mi xilyatan takkaay naa ngeen di ko waddoo mooy lu luog marjaan wa taraa gis nga alfulka gaal mawaaxira ñi di way xotti ndox ma fii ci ndox mi wali tabtaxu ndax ngeen di nekk ci bay sàkku ji min fadli yi ca ngëneelam wala alakum ndax yéen tashkuroona ngeen mën a sant wa alqaa na fil ardi ci suuf rawaasi yaay kenu an tamida bañ muy jéng bi ku mag ak yi wa subulana ki yoon laalakum ndax yéen tax dana ngeen jub wa alaamaatin mu def ay mandarga ay mandarga ci suuf si ngeen xam fu ngeen jaar wa wa ak ci asamaan si wa bi nañ mi ci biddiw yooyu itam ci si hum ñooñu ca wala ca jaww ja yaxte doona ñu ngay jubee ci biddiw yooyu loolu mool yépp xam nañ ne biddiw yi moo leen di gindi bàyyi na loolu léegi mu ñëw ci ñi jaamu mu ne ngi la def yéen na ngeen ma won seen yàlla yi lan lañ bind moo tax mu ne afaman yaxluqu ndax ka dana bind kaman laa yaxluqu dana mel ni ki dut bind avala tadakkaruuna xanaa du ngeen waaru wa in tauddu ndem lim ngeen niamatallaahi xéwali yàlla laa tuxsuuhaa du ngeen ko mën a takk ndax inna laa nak yàlla la gafurun aji baal la mu leen rahimun aji yëram la mu leen wallaahu yàlla yaalamu dana mu xam maa tusirruuna la da ngeen nëbb ko wa ma tuclinuun ak la da ngeen feeñal ko والذين نيغا خامن نك يدعون دنا جاملين من دون الله تدعو ني يال نيوم دي لا يخلقون بند ني شيان توس وهم نيوم صح يغلقون ديفنا بند لين اموات ني دي لاني غير احياء دند ني وما يشعرون تي امو دار لو لين دي ييغال دي لين خمال يبعثون كان دي في ديكل لين الهكم سين يال اله يال واحد بن لا والذين نيغا خامن لا يؤمنون غمو بالاخره ñoñu qulubum sen qoli munkiratun aji weddi la wahum ñoo mustakbiruuna way réy réylu lañu laa jarama dëgg ana laa yàlla yàlla mu dana xam maa yusurruuna la danañu nëbb ko wa maa yuclinuun ak la danañu seeñal ko innahu naka yàlla laa yuxibu du fay al mustakbiriin ñi nga xam ne ñoo réy réylu wante ana ñan ñoo réy mu ne mooy ñi nga xam ne wa iza la ndem waxeef na lawum ñeel leen ne maada anzala lan la wàcce rabbukum seen borom qaaloo ñu ne asaaturul awalin nari maam yu jëkkay rekk la li yaxmilu wax nañ ko ngir ñu yenu awzaarawum seen bakkaar ya kaamilatan muy aji mat yowma alqiyaama wa min awzaari lazina ñu yenu ca bakkaar yi ñi nga xam ne it yudilluunahum ñoo leen doon réeral bi gayri ilmin ci la dul xam-xam bu fekkee topp na la jàngaloo ko fokk nga réeral ko ndax xam-xam du fa ne alaa dëgg saa bon na kon maa yazruuna la ñuy bakkaar kon nit du yenu bakkaar lu may ci ki nga xamne ya ko réeral moo man li yahmilu awsaarahum kamilatan wa min awsaari allazina yudillunahum bighayri ilmin ala sa ma yazurun laqad makara fexe wala jene ñi nga xamne min qabli ñoo jitu jiitu faata laahu indi yàlla bunyaanahum sen tabakh ba yàlla jàpp ko min al alqawaidi ci fondama ba dal di ko dajjeti fa kharra dal di rot alayhim ci ñom saqfu qëdd ba min fawqihim sen kaw wa taw dikkal leen ala azabu mbugal min ay su la yashuruna fu ñu yëgut su ma yowmal qiyaama loolu yépp nag mbugalam àddina la su ma yowmal qiyaamati nag yuxzihim yàlla toroxal leen wa yaqulu mu wax naan ayna shurakaa yi ana sama bokkaale ya la jëne ñi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaaquuna di wuutee fiim ci ñoom qaala wax la jëne ñi nga xam ne ootoo joxeef na leen al ilma xam-xam ñu ne déere wallaay sa morom kay amut li nara am kay moo di ne inal xizya naka torox al yowma tey wa su'a ak mbugal mu bon alal kaafiriin moo nar a nekk ci yéefér la ci ne ña nga xam ne tatawafaahum dana rey leen dana faat leen almalaikatu malaaka ya fekk daalimi anfusihim ñu nga tooñ seen bopp ci bokkaale fa alqaw ñu sanni asalma asalama jàmm ja ñoom ñëpp ñu ne yàlla ñun jàmm lañ bëgg sànni ko kàddu ga ali ne maa kun naa nekku ñoo ndey na amalu di def min sooyin ci lu bon balaa kay inna laa yàlla mu alimun ku xamoon la bima kuntum ci la ngeen nekkoon taamaloona di def ko fadxuloo dugg leen abwaaba jahannam bunti safara xaalidina ngeen di way beelu fiyaa ci safara fa bii sa bon na masal mutakabbiriin sax waaye ñi nga xam ne ñëw rëy bàyyi na ñooñu mu ñëw ci ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom mu ne wa qiila waxeef lilladina ñeel ñi nga xam ragal nañu yàlla maa daa anzala ana lan la wàccee rabbukum seen borom xaaloo ñu ne xayran aw yiw rekk la li léegina ñeel ñi nga xam ne axsanu rafetal nañu fii haadihi duniyaa ci bilaadina ñeel na leen xasanatun njekk wala daarul axira kër gu mujj ga nag moo gën ولا نعمة باخنا دار المتقين كرن يرغل يال مويلا جنات عدن على الجنة عدنان لا يدخلونها نيدقفا تجريدنا دو من تاتيا كسفم على انهار يلي ينت لهم نيان لنسيا ففلي ما يشاؤون لولد نير كذلك نكنون يجزي الله لي فيي الله المتقين ويرغل نيال على جن موي نيغا خامني تتوفاهم دنا فاد الملائكه طيبين فك نيغا تاي اك ايمان يقولون نيغا سلام جم عليكم يا نيك ادخلوا دغلين الجنه بما كنتم يلي نين نكون تعملون دي ديفكو باين لول مو نيو تي مو جيك كيفر مو نه هل ينظرون ندا دنا نيو مو ندي كودي قار الا ان تاتيهم lu mooy ba dikkalee leen almalaaikatu malaaka ya aw yaatiya wala dikka amru rabbika ndigalal sa borom kadalika naka noonu faala la defee la dina ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa ma dalamuhum tooñut leen laaw yàlla walakin waaye kaanu nekkoon nañ yadlimuuna di tooñ anfusahum seen bopp fa asaabahum jot leen sa yaati ma amiloo way ñaawi la def nañ ko waxaaqa wàcc na biim ci ñoom maakaanu la ñu nekkoon yestasiyoona di yejji ko léegi nag ñu indi ay lay lay yoo xam ne yu doyadi la wa qaala wax na la dina ñi nga xam ne ashraku bokkaale nañ seenu lay mooy ah yàlla day moo ñu def nii nuy jaamu xiram su ko neexoon duñ ko def ñu ne law shaa allahu bu neexoon yàlla ma abadna nu <laughs> jaamu min dooni lu dul yàlla min cheyin dara naxnu ñun wala baaw naa du caageen suñuy baay wala xaram naa duñu xaraamal min dooni lu dul loolu min cheyin dara kadalika naka noonu ñu weddee faala la defoon alladina ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon yow yonent bi jottali rek moom moo la war fahal ala rasuli ndax war na bu yonent ilal balaaxu lu mooy jottali almubiinu guddaa ji biir walaqad baasnaa yónni nañu fii kulli ummatin ci xeet wu nekk rasulan ab yonent mu naan leen ana abudullah jaamu leen yàlla wajtani bu ngeen teet ataaxuutu iblis fa minum nekk na ci ñoom man adallaahu ko jubal na ko yàlla wa minum nekk na ci ñoom it man xaqat ku ey na ci moom adalaalatu réer ga fasuroo dox leen filaar di ci suuf fanduroo seet leen kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mu jëg way nar ya in taxris ndem xir nga alaa hudaawum ci jubal leen fay na laa yàlla moom laa yaa di du jubal man yudallu ka dana réeral ko wa maa lahum de di ñeeleen min nasirina ci way way way way tere ñoo xam ne dañ leen di tere walis mbugalam yàlla ma moo di ndimbal wa aqsamoo géñ nañ billaahi ci yàlla jahda aymaanihim seen dëgg-dëgg yi ngéñ ne laa yabaasu du dekkal laahu yàlla man yamootu ko dana dee bala a ah, kay waadan da la alayhi bu war yàlla xaqan dëgg la walakin waaye aktar naa si li gën a bëri ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu li yu bayyi na ngir nay bira lawum ñeel leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna ñu wuutee fii ci defam wala yaalama ak mu xam lazi na ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ annahum naka ñoom kaanu nekk nañ kaadibina di way nar innama qawluna naka sunu wax li cheyin ci dara isaarat naaw bu ñu ko bëggee an naqula nuy kun amal fa yakun mu daal di nekk ca ca saasa bàyyi na am iman ak ni niga nar a xuppee mu ne walladina ñi nga xam ne haajaru gàddaay nañu daw ak seen diineeg seen aqida fillaay ci yàlla min baadi ma dulimu gannaaw bu tooñef leen ñooñu day buur nee na lanu bawwi annahum dananu wàccee leen fi duniyaa xasanatan wala ajarul axirati waaye yool bi nga xam ne moom lañ leen di jox ci àllaaxira àddina gaa wàccee nañ leen wàccuwaay wu rafet waaye yool ba ci àllaaxira akbaru moo gën a mag nag law kaanu yaalamuuna buñ ko xamoon la jëne ñi nga xam ne sabaroo muñ nañ wa yatawakkaluuna ñuy sukkandiku ala rabbihim seen borom ñooñu laa wax min qablika lu la jiitu illaa rijaalan lu mooy ay góor mosuñoo yónni jinne wala malaaka mosuñoo yónni jigéen ay góor lañ sa yónni ni yow kon nag nekk gi nga nekk góor nekk borom kër yore ay jigéen duy wàññi ci sa daraja dara ndax ñun mosuñoo yónni lu mooy ay góor noo yi ñuy wax yu ilayhim jëm ci ñoom loolu nag su ngeen ci amul leen leer laaj leen yahud jàngoon tawraat danañ wax ne dëgg la laaj leen ñi jàngoon linjiil danañ wax ne dëgg la moo tax mu ne fas alu laaj leen kon aala dikri ñoo ñu doon jàng alquran in kuntum ndem nekk ngeen yéen laa taalamuuna xamu leen ci alquran dara bil bayinaati ci yu weex yooyu wa zubureeg téere ya wa ansal naa wàcc nañ ilayka jëm ci yow a zikra alquran lu tax ndax nga naan comme ndax nga takk ko mu ne déedéet li tubayyina ngir nga mën kaa biral dinaa si ñeel nit ñi maa nuzila la wàccee fon na ko ilim jëm ci ñoom wala lum ndax ñoom yatafakkaroo nañu xalaat ci afa amina ndax wóolu la si ñi nga xam ne makkaroo fexe nañ asayaati yu bon ya an yaxsifa di nuural laahu yàlla biim ci ñoom alaarda suuf aw yaati yawum wala dikkal leen ala azabu mbugal min ay sulaaye shucuruuna fu ñu yëgut aw yaaxudahum wala mu jàppaleen fii taqallubihim ci seen walbatiku maanaam ni ñuy demee ka dikk mooy taqallubihim yàlla jël leen mbugal yow mi weddi mu ne yaadal xel ndax yàlla mënul jëlee mbugal ci asamaan mu wàcc ci yow léegi wala ngay dox ba yàgg rek suuf si pëtëx nga dugg ndax yàlla mënu ko wala boog nga tukki rek mu téye la fa doo dellu si fa maahum deen ñoom bi mujisi nañu di way raw yàlla aw yaaxudahum wala yàlla jàppaleen ala taxawufin ànd ak fekk ma ngi leen ragal loo ba ñu tiit ba seen xol di bëgg a génn fa na rabbakum naka seen borom la raw fu naa ji ñëwete la rahimun aji yéram la awalam yaraw ndax xamuñu ilaa maa xalaq laahu jëm ci la bind na ko yàlla xanaa duñu xool li yàlla bind min ci xeetu dara boo seetee lépp li yàlla bind rek yàlla defal na ko keppaar amul dara bind mu am jëmm lu mooy dana am ker léegi nag ker googu mu yàlla ne nañ ko seetlu loolu daf laa bëgg yóbbu ci nga xam sa borom mu ne xoolal lépp lu yàlla bind mu defal ko keppaar ndekete yow boo jaamuwul yàlla it keppaar gi ma ngi jaamu yàlla yeta fay yow ker ga ma ngay jëng dilaaluhu keppaaram ga anil yamin léeg-léeg mu jaar ci ndeyjoor wa shamaili léeg-léeg mu jaar ci càmmoñ mu ne keppaar googu lu tax mu tëdd ci suuf mu ne sujjadan dañoo nekk di way sujjóot li laay ñeel yàlla waxum te ñoom daaxiruuna way toroxlu lañ walilaay kon nag ñeel yàlla daal yasjudu lay sujjóot kon maa fi samawaati lépp li nekk ci asamaan mu ngi sujjóotal yàlla wa maa fi l ardi ak li nekk ci suuf min batin ci xeetu yépp yiy dox rekk ñu ngi julil yàlla wal malaayikatu ak malaaka ya wahum ñoom laa yastakbiruuna duñu rey rëy lu mukk ci julil yàlla yaxaafuuna ñu ngay ragal rabbuhum seen borom min fawqihim seen kaw wa yafaaluuna ñuy def maa yumaroon la def na digal leen ko loolu mu ñëw ci mushrikoona yi ñi nga xam ne ñooy bokkaaleeg yàlla seen pas-pas yu yàqu yooyu mu ne waqaala wax na laahu yàlla ne ee yéen nit ñi laa tattaxisu bu leen jàpp ilaahay ni ñaari yàlla is ni ni ñuy ñaar yàlla nee na bu leen ma def ñaar innama huwa naka yàlla ilaahun yàlla la waaxidun ba di benn kon fa iyaaya man yàlla daal farhabuuni ragal leen ma wala woo ñeel na ko ci moomeel maa fi samawaati li nekk ci asamaan yi wala ardi ak lépp li nekk ci suuf moo ko moom wala woo ñeel na ko addiinu diine wala topp waa siban joo xam ne aji war la wala aji sax la wala aji sell la lu mooy waasiban واصبا بمعنى دائما ولا واجبا ولا خالصا عفا تتقون من دغين دي رغال غير الله لم يال وما بكم لا نيك تي من نعمه تقيت قول فمن الله تي يالا جوغي ثم اذا مسكم ندم لال نلن نك اضر اب خيف او مر durru feebar durru ak réer durru ak ñakk tëj fa tëj aroona ngeen di dengoo ilahi jëm ci yàlla dengoo mooy daje ci benn béréb di coow di ñaan dara mu ne léegi nag lor bu ñëwee ci yéen yéen ñëpp ci yàlla ngeen di dengoo daje ca di ko ñaan xam ngeen ne moom rekk ci mën dara suma topp gannaaw ga nag ida kashafa ndem uññi na addurra lorga ankum ci yéen isa ci betteel fariqun du ñëpp ci yéen de waaye fariqun ab kuré minkum ci yéen yushrikoona ñuy bokkaale birabiim ak seen borom te yéen xam ngeen yàlla rek man boo ndee xéewalam nag am na ci yéen ñoo xam ne cant gi duñ ko bàyyee yàlla dañ ciy boole keneen yaakaar ne ko ko tax ñu am ko isa fariqun minkum birabbihim yushrikuun li yakfuru ngir ñu weddi nag ndax xéewal boo santul borom daanaka da nga ko weddi moo tax mu ne léeg furoo ngir ñu weddi bi ma ataynaahum ca la jox nañ leen ko fa tamattau waaye yéen ñi yéen ñi nga xam ne yéen a sax ci mbir moomu su ma leen bindee ngeen jaamu keneen su ma joxee xéewal ngeen sant ngeen sant keneen addinaa ngoog fa tamattau xéewu leen rek fa sawfa taalamuuna xal sa ngeen a xam loolu tëkku la waaye jaaluuna ñu ngi def li ma laa yaalamuuna lu ñu xamut nasiban ab bi ma razaqnaahum ci la wërsëgal nañ leen ko maanaa li ñuy lekk li ñuy naan sàkk nañ ci ay bidaa di ci wutal cër keneen ak ñeneen waaye te allaahi géej naa ci yàlla ne bés dana ñëw ma laaj leen ko de te képp ku ma dudal wax lu ma waxut man yàlla wala nga sos loo xam ne defuma ko wallaahi la tus alun na def na laaj leen ama kuntum ca la ngeen nekkoon na di dudal ko yàlla waaye jaaluuna ña ngay def li laay ñeel yàlla albanaati doom yu jigéen subhaanahu sell ñeel na ko wala um ñeel na leen maa yashtahuun maa yashtahuuna la danañu faytu ko yépp ñeel na leen mooy li ñu bëgg wa bu bushira yéen na ngeen yàlla ay doom yu jigéen la am yéen na ngeen am li ngeen bëgg mooy doom yu góor te yéen xam ngeen ne doom yu jigéen kenn ci yenn bëgg ko ku ne bëgg na ko it dafay bëgg a nax nit ñi ndax yàlla mi la xam ne te bind la nee bëgguloo ko mu ne wa ida bu ndem bégaleef na aadum kenn ci ñoom bilun saa ci doom ju jigéen ku nekk ci sa jabar am na doom ju jigéen zàlla yendu wajuhu kanamam mos waddan ma nga nekk di aji ñëkk ngir ñàkk kontaan wa watewam kadimun ma nga fees dell ak mer yetawaaraa ma ngay jéem a nëbb nag minal qawmi ci nit ña min sooy ma bushira bihi ci lu bon liñ ko bégal ne am na ko ma nga naan ci xelam ayum sikuhu ndax damay téye doom ji jigéen rek ala huunin ànd ak ak doyadi ndax gàcc rek lay indi am yaddu suhu moo ndax da koy dal fi turaabi ci suuf alaa waaw yeey saa bon maa yaxkumuuna li ñuy àttee lu bon loolu ngeen bañ ba di ko jéem a dallaka dalla mooy suul muy dund di ko loolu ngeen bëgg nag na yàlla moom def koy am li na ñeel ñi nga xam ne laa yuminuuna du ñu gëm bi laaxirati ci àlaaxira ñeel na leen masalu sëw i misaalam mu bon wali laay ñeel na yàlla almasalu misaal mooy exemple ala bu daay ji boobu yàllaa ko moom wax yàlla al aziz mooy aji ci kàttan al hakim mooy aji xarala walaw yuaaxidullahu fekkoon dana jàppee yàlla naasa nit ña bi dulmihim seen tooñ gi dama dama moo ko bëri lu muy tooñ day tooñ moromam di tooñ boromam mu ne waaye bu leen yàlla jàppee woon ci tooñ gi kon fekkoon na mu rey ñépp maa taraka du bàyyi aleyaa ci suuf min daabatin jënnaa ji doxati ndax képp ku fi dox rek tooñ nga ko kon nag bu leen jàppee woon loolu du fi bàyyi kenn walakin waaye yuaxiruhum da leen di yéexee di leen muñal ilaa ajalin ba cib dig musamman buñ tudd fa isa jaabu di kee ajalahum laa duñu tarde saatan benn waxtu wala yastaqdimuuna duñu avancé benn waxtu bu dig bi ñëwee daal dara dara dara dara munu ca jog ulamaawu sira ulamaawul xadis ne nañu dama dama yàlla dafa wakkiil am malaaka mu yore lekkam mu wakkiil mel ni malaaka mu yore naanam wakiil malaaka mu yorey noppam benn malaaka yorey bëtam benn malaaka yore aw làmmiñam léegi nag benn malaaka moo yore digg bi nag bi ki yore digg bi bu ñëwee indi téere bi daldi ko ubbi ci kanam gaa yi daldi ubbi ne jeex na kat ci waxtu sàngam la yem daldi ub dem na raqib ak ati daldi ub seeni téere ne bindatun dara ki jeexal na dootuñ bind yiw ndax dootu ko mën a def dootuñ bind safaan ndax mënatu koo def lépp dañ ko koy mënal ñu daal di laf seeni sijil daldi dem teg ñu ngay dégloo malaaka yi ci des nag dañuy gën a njaxlafante lu gën a bari ki yore tànk yi mooy njëkk ñëw daal di ne jeex na benn jéegu du ko seqeti te jëb téeréem léegi dem dañ koy yóbbu waaye dootul dox ba yàgg malaaka bi nga xam ne moo yore bët yi léeg-léeg moom mu topp ci ñëw ne du jisati te jëb téeréem ba yàgg ki yore nopp yeeg ki yore làmmiñ wi ñoom ñaar ñoo fi mujj léeg-léeg ki yore làmmiñ wi njëkk ñëw léeg-léeg ki yore nopp yi ñëw ne kii du déggti daldi tëj ki yore làmmiñ wi ñëw ne benn baat du ko waxati dal di tëj su ko defee keere roxo gi nag léegi moo ciy des ñu yëkkati loxo mu daanu ñu yëkkati tànk mu daanu keere wërsëg wi ñëw ne kii du lekk tii ñu xol ko ruy bi mu génn benn pepp du dugg ti keere ndox mi ñëw mooy mujj buñ ko xolee aman na mu dem aman na du dem ñu bàyyi keere roxo gi bu ñëwee nag ci dig ci waxtu wa waa ji waxoon ak minute baak sogondo ba bu jotee mu jël roxo ga mu dal di jeex ñiy mocc ñay pikir ak ñay saalaaleeg ñay diwi garab ak borom ren yaa kenn dootu ci man dara mbir ma day dal di jeex lu docteur yi bari bari ñoom ñëpp noonu lay mel loolu la buur bi wax naan bu dig boobu dikkee laa yastaxiruun du jéem a yiixantalu saatan benn waxtu wala yastaqdimuun ñun mënul muusit ba mu avancé benn waxtu waaye jaalo nañu def lillaahi ñeel yàlla maa yakrahuuna la danañu bañ ko watasifu tey melal alsinatum seeni lammiñ alkadiba yi nar anna naka ñeel na leen la xus naa njëkk laa jarama dëgg anna lahum naka ñeel na ñooñu naaru safara waa annahum ñoom mu faratoona ñoo jéggi dayoo te jéggi dayoo baaxul bokk na ci feeñu waayu kàttanu yàlla ak xéewalam ci doomu aadama li muy wax si nii mu ne taalaahi géej naa ci yàlla ne laqad arsalnaa yónni nañu ilaa umamin jëm ci ay xeet qablaka min qablika ñu la jiitu fa zayyana rafetal na lahum ñeel leen cheytaan amaalum seen jëf fa huwa cheytaane waliyuhum moom méngoo seen mbir al yowma tey walahum ñeel na leen azaabun bugal alimun mu daaji metti wa ma anzalna wàcceewuñu alayka ci yow alkitaaba téere bile ilaa li tubayyina lu ngir dañoo bëgg a biral lawum ñeen leen allazi li nga xam ne ixtalafu wuute nañ fii ci moom wa hudan jubla la wa rahma li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yuminoon dinañu gëm ko wallahu yàlla anzala wàccee na min asamaayi ci asamaan maan ndox faaxiyaa mu dundal bii ci ndox ma alarda suuf baada mawtiyaa gannaaw ak inna fi dalika aji nekk ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yasmauna danañu dégg ko way na lakum naka ñeel na leen fi la na ami ci jur gi ibratan xalaat xalam a ngi ci ngeen mën cee xalam xalam mooy xalaat nusqiikum ñu nandal leen mi maa fi butunihi lu jóge ci biiru juru kër gi ci lañ leen di nandal min bay ni farsin lu jóge ci diggante sébbalit sa wadamin ak deret ja ñu génne ca labanan soow xaalisan wu sell saayiran wu neex li charibin ñeel ñi koy naan anakan moo xam fan laa ko denc ak ban machine moo ko transformé kana ko liggéey wa min na naxiil ak ci meññit tàndarma yi itam ñu defal leen ci am naan ngeen di ci xoñj di naan wala anaabeg raisin yi ngeen di ko xooj di ko nal di naan te taxiso na ngeen di jàpp minu ci raisin sàkkaran sàngara buy mandi wa risqan ak wërsëg xasanan boo xam ne bu rafet la mooy bu fekkee ne xoojagoo ko mën nga ko lekk mu neex inna fi zalika aji nekk la ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yaaqiluun danañu am xel waaw xaa wax na rabbuka sa borom ila naxli jëm ci yemb wax ci ci al arabiya wala ci lugatul quran dafa am ñaari maana wala lu ko ëpp am na wax boo xam ne mooy maanaam kooku yàllaa nga koy jox ab yonint looloy wax yu bu mel ni wàcce alquraan nit ki day toog rekk malaaka indil ko alquraan sol ko ci xolam mu dal koy mokkal loolu ku ñu yónni mooy mel noonu ku yàlla yónni looloy wax yu bi ñuy defal ab yonent am na wax yu boo xam ne yàlla def koy xamal nit mu di ab xam-xam te kenn yónniwu ko kooku it ilaam la am na wax yu kooku ilaam la comme ni ko yàlla defee woon yaayu Muusa am na wax yu boo xam ne nag moom ilham rekk la loola ay bàyyi ak yent yent lay dal boobu wax yu nag la wax fii ne yemba yàllaa ko wax yu amal ko yembaa ngi nii nekk lu yéemu yemba dafay njafaan day lekk ci tontur bi lekk ci bale lekk ci bale boole ko daldi génneeg lem ci boppam lem googu ko jëlut moom bu yàggee da koy naanaat bëgg na ko te ñoom yemb mbooloo la ñuy doon waaye la ñuy bari bari dañoo organiser loolu yépp yàlla day xamal doomu aadama dëw la ne am réew walla àddina ñépp duñ ko jiit kenn mooy jiitu ñi ci des topp ca walla mu tas gis nga yemba li ñuy bari bari benn yemba mooy leen di jiite bu jigéen ñu tuddee ko malika boobu moo ca gën a rëy moo ca gën a gudd am beneen yemb boo xam ne mooy jëkkër ja boobay Dakar bi waaye boobu nag jiitewut bu jigéen bi mooy malika bi mooy jiite am na nag bu góor bu nekk ak moom mu ne ñu ne leen yéen ñi ci des ñépp nag ay charaa ngeen tudd yéen ñëpp ay soldaar ngeen dem leen ngeen liggéey ñooy defar lem gi ñooy soldaar si sàmm lem gi soo ko bëggoon a jël tey ñoom ngay xeexal te yamba buy xeex léppam la ciy def day jaay ba kanam ndax yemba waxtu mu fettee rek dee na ndax taban bi ci biir yaram wi lay génne su génnee ci taat wi ba jam rekk rek woowu day dee comme ni ko Busayri nettalee wa naxlu qarsuha yajlibu lxatfa ilayhi wa ma lahu inka fettam gi daf koy indil dee te xamul ne ki muy fett sax daanaka du ko metti lool te moom ci lay dee waaye manko gi ñu mànkoo tax na ba bu bëggee yàq seen kër gi ñoom ñëpp seen bakkan yi ñu jox la ko noonu la ñu la leen yàlla wax yi ñoom yemb suñuy tukki bu jigéen bi bu ne bërit na ñu dem balaa ñoo dem dañuy lekk lem gi liñ ci man li ci dañu bàyyi ko fa bu jógee moom bu jigéen bi bu yenee benn benn jubluwaay ñépp dañ koy topp buñ la romboo dañuy mel ni avion buy dem jëm ci benn boor rek ba yëg cim lëm walla ñu yegg cim xunt mu dal ne fii la gaa yi duñ werante dañ fay dal rek mu ne wuti leen ñee wuti nañu ndox ñale wuti nañu lu ñuy lekk ñu dem nag dem laal bi ñuy laal ci garab gu nekk gu am tontor bu xeeñ indi ko yàlla nag ne looluy génn ci moom garab la muy lem gi lu tax muy garab ndax day bàyyeekoo ci garab yu bari day njafaan ci lu bari boole ko moo tax mu nekk garab nee na lem moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na day faj moom lem biir boo xam ne dafay metti benn jigéen ñëw ne ko sama doom day biram day metti mu ne ko jox ko lem mu jox ko mu naan tuuti ñëw ne ko moom day seddagul mu ne jox ko lem mu joxaat ko tuuti mu naan ne moom day seddagul mu ne ko jox ko lem mu joxaat ko lem mu naan newul jàng biir ba sedd mu ñëw ne sedd na de mu ne ko yàlla wax na dëgg sa biiru doom ji fen na ndax yàlla moo ne lem gi saafara lay doon bu fekkee ne lem bi dugaluñ ci yeneen pexe nag bokkul ak lem gi gaa yi dugal seeni pexe lu nekk ñu def ko ca googa dafay dal di yàqu ndax dafay ñàkk asaala bi nga xam ne moom la amoon kon nag wax yu bu ñëwee ci bàyyi ma loola ilhaam la te bàyyi ma yépp yàlla di leen def ilhaam gis nga fas yi ni ñuy xamee fu ñuy jaar ak lu ñuy def boo dàqee mu xam ne danga ko dàq boo sëfee mu xam ne demal boo xajjee mu xam ne dafay jaabam day daw wala day ñàkkam day cal koku ilham la bo xamne ne mu ngi joge ci borom bi boko taxaw lo mu xamne lol nga wax bayima yeb yalla da leen def ilham dañu wuute nak ni ñuy mel gis nga xorondoom xalsi na ñew ci kanam momit it day am ilhaami boppam mbooloo la ñuy doon mu manko fuñ tollu ñi ngi liggéey di kër kër di wut gis nga li ñuy neew neew doole ànd ga ñu ànd tax na fu ñu jaar nga gis mu nekk aw yoon te seen tànk yi dafa sew ba doo ko xala gis waaye àndante moo leen ko jox yooyu lay jàngale na waaw waxaa wax yu na rabbuka sa borom ila nax li jëm ci yamb mu ne ko an eey ittaxidi jàppal minal jibaali ci doj yi bu yoota néeg moo dim lëm wa min ashajari ak ca garab ya muy ma yaarushuun ak booboo ga danañ aj ko arshu moo dig booboo boobo dafay mel ni mbalk dañ koy yett boo demee ci béréb yi am garab dañuy yett gi benn génni boobo aj ko ca kaw garab su ko defee bu yembanaayo ba ñu egsi rek daldi na fii dëkkukaay la dëkk fa bu fi defee lem nga ñëw dàq leen jël lem gi looloy arshu mu ngi bàyyee ko ci lu ñuy aj moo tax mu ne bu ma yaarushuun aj ca la danañu aj ko ci laala moom ak booba la su ma kuli lekk leen min kuli tamaraat yi ci bépp meññet faslu kii soobul subu la rabbika yoomunu sa borom zululan mu di lu ñu tàggat yaxruju dina génn min butuniha ca biir yamba ya sharaabun ak naan muxtalifan gu wuute léeg-léeg mu weex tàll wala mu xonq wala mu ñuul aji wuute la daal alwaanuhu melokaanu lemb fii nekk na ca lemb ci shifaawun saafara li naa si ñeel nit ñi inna fi dalika aji nekk la ci loolu laayatan kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yatafakkaroona danañu ci xalaat bay na loolu mu ñëw ci kéemaani kàttanu yàlla ak ni mu nekkee kenn yàlla mi nga xam ne mooy bind doomu aadama nit ku jëkk ki ci ban bu ñuul kukk lañu ko bindee mooy min xama ci lañu bind nit ku jëkk ki moo tax ulamaawul asaar bu ñu waxee ne nit ku ñuul mooy cosaan loola alquran dàq ko ndax alquran nee na ñu ngi bind doomu aadama ci ban bu ñuul kon bu ñuulee mel na ni loolu moo di cosaanam kon ak weex daf ko gaar wala ak xonq daf ko gaar ndax ñu ngi ko bind min xama in muy ban bu ñuul loola ulamaawul asaar loolu la ñu wax ñi nga xam ne ñoo doon def xufrayaat yi di gas di jeex di jeqi jeexi di doomu aadama fi ñu fekk kaangum bopp nit ku weex ki mu jeex tàkk waaye fi mu tëddoon ci ban bi ban bi marqué ba ñu génnee ko fekk nañ ko lu war a mat ñeneenti mètre ci suufam ñu fekk fi kaangam bopp nit ku ñuul ki te ulamawul asaar nee nañu diggante ñaari nit ñi mètre bu nekk war naa mën a nekk nanga mi siècle ci dund kon ñu ne kon tabaqaat yooyu mu ko jiitoo kon ku ñuul ki jiitoo na fi ku weex ki lu toll noonu loolu nag alquran saxal na loolu ndax wax na ne ñu ngi bind doomu aadama ci ban boo xam ne bu ñuul la loolu yépp ci kàttanu yàlla la kàttanu yàlla bokk na ci lu yéemu la garab googu ñu wax tuut muy waraqu tuut aw sax sax yi dañ ciy nekk di ko lekk di màgg kawar kawar gi ñu dagg ko def ko mu nekk xariira waaye xobi tuut boobu su ko kéwél gi lekkoon moom it téere yi ci baat bi boo ko daggee gëttug miske ci lay génn te ñoo bokk lu ñu doon lekk yamba ñëw lekk tuut daldi génne lem bay ñëw lekk garabu tuut génne neefara te ñoom ñëpp li ñuy lekk benn la mu ne kon loolu mooy kéemtaanu yàlla neefere bi bay bi génnee misk bi nga xam ne moom la kéwél gi génnee lem gi yemb wi génnee xarira bi sax wi génnee ñoom ñëpp ñu ngi doon lekk waraqu tuut waaye ku ci nekk gis nga li mu transformé ba génnee ko yàlla ne loolu kàttanam la mu ne wallaahu yàlla moomu xalaqakum bind na mu leen su ma faakum moo leen di faat wa minkum nekk na ci yéen man yu raddu ka def na ko delloo ilaa ardalil umri mu jëm ci gën jaa toroxi dund ndax nit ku dund ba màggat bay jooy xiif ba xàmmeetoo guddeeg bëccëg dellu nga ci dund bi gën a torox mooy dund boo xamatul dara li kay laa yaalama mu dem ba xamatul baada ilmin bu mu xamee du xamati cheen tus inna laa yàlla alimun aji xam la dogal la ki ñu doon jàngal nee nañu loolu dana dal képp kenn ku màggat ba mu des ki nga xam ne jàngakatu sharia la ak alquran ki nga xam ne xam-xamu diine moo nekk ci moom nee na kooku boppam du toj mukk ba ba muy wax alquran di ci dugal leneen wala muy wax lu jëm ci yàlla wala di waaraatee di fàtte wala muy indi leneen kooku moom du ko jot loolu li kay la yaalama min baadi ilmin shay'a mën na koo gaar nag bu fekkee waxi àddina la mën na caa fàtte waaye bu jëmee ci yàlla rek la mu xamoon lay xam wallaahu yàlla faddala gënal na baadakum leen ci yéen ala baadin ci ñenn ña fi risqi ci wërsëg wërsëg itam dama dama yi yemuñu ci am na ko am lu bari bi am lu mu soxlawul mu denc ko fenn am na koo xam ne li mu am lépp def koo soxla am na koo xam ne li mu am doyut ay soxlaam da koy manqué am na koo xam ne daanaka amul dara yàlla ne loolu nag man maa ko def maa gënal ñenn ñi ci ñenn ñi ci wërsëg waaye li ma ci jublu li ma ci jublu mooy ma bëgg a xam yenn ñëpp ku ci ne ci yéen la mel am na ku wërsëg da koy beewloo am na ku ñàkk da koy ñàkkiloo am na ku ñaari mbir yi ñoo jeexital ci moom moo tax mu ne fama alladina déet ñi nga xam ne fuddulu gën a leef na leen biraat di risqihim ñuy delloo seen wërsëg alama malakat ca la moom na ko aymanu aymanum seen ndey joor mu ne ñooñu nga xam ne seen wërsëg moo ëpp li ñu li ñu soxla dañoo bëgg ñu delloo si wërsëg bi ci ñeneen ña su ko defee ak ñi ñu moom sax fahum ñoom sawaawun ñu nekk di way yemoo fii caalal jooju su ngeen ko defut weddi ngeen xéwalu yàlla moo tax mu ne afa yajhaduun ndax dañuy weddi bi nicmatillaahi ci xéwalu yàlla wallaahu yàlla jaala def na lakum ñeen leen min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay jabar su ko neexoon mu ne nit fasay nekk jabaram koy du ci man dara waaye nee na ci xéewalam mu defal leen min anfusikum du ngeen am jabar ci malaaka yi du ngeen ko am ci jinne ya du ngeen ko am itam ci <coughs> bàyyi ma yi am nañu ne ñoom am nañu jabar ci jinne ya waaye comme yàlla waxu ko fu ñuy jëlee tegtal ñun ku ko wax sax ne loola jinne la ndax li yàlla bind ci mbindeef ñu nekk fii ci kawnu bi xamandooruñu lu mu doon xamoo loola nga am jabar wan xeetu rab la wu yàlla bind wu duhul yow nga teg ko jinne ana kan moo la wax ne kooku jinne la tudd comme yàlla moom waxut lu mooy ne min anfusikum azwaajan kon boo amee jabar ci lu duhul nit yow nga xar baax de waaye nag kenn waxul la ne loolu moo tudd jinne afa yuminuun ndax dañuy gëm bil li ci caaxaan wa yakfuruuna ñu weddi bi nicmatillaahi ci xéewalu yàlla wa yaabuduuna danañ jaamu min dooni laay lu dul yàlla maa loo xam ne laa yamliku du moom la ko lawum ñeel leen risqan wërsëg mina samawaati ci asamaan wala dég suuf seyan dara wala yastatiuuna mënuñu mënuñu ko fala tadribu bu leen sadd lillaahi ñeel yàlla alam saalaay léeb inna laa yàlla yaalamu dana xam wa antum te yéen laa taalamuuna xamu leen <coughs> bàyyi na loolu ma ngi léeb nag nit ki am ñaari boroom <coughs> yàlla ak diw ñu nekk sa ñaari borom walla yàlla ak nangam loola nekk sa ñaari yàlla yàlla ne léegi nag bu fekkee ne jaam benn borom la am su xëyee ne ko taxanil mu taxani mu ne ndax jaam boobu dana yem ak jaam bu am ñaari borom bu kii ne taxanil kii ne wutil xànc fan la jaam bi jëm ndax danañu yem mu ne loola nag mu ngi mel nii li mu nar a wax daraba laahu sa dana yàlla masalan aw léeb abdan ab jaam a ngi mamlookan buñ moom rek laa yaqdiru moom manul ala cheyin ci dara moom fuñ ko teg rek lay tegu wa man naaw ak ku ñu wërsëgal min naa ci ñun risqan wërsëg xasanan wu rafet fo wateem yunfiqu muy dundale minu ci wërsëg wa siran lu nëbbu wa jaaran nag ci lu feeñ kenn ngi nii di jaam buñ teg fale yorul dara amul dara kenn ngi ni ku mom bopam ñu jox ko wërseuk mu cey joxe ci lu feñ ak lu neub ñaar ñi ndax yem nañ mu ne yemuñu ben ngo mu ne nga ne ko yemuñu de mu ne alhamdulillah cent ñel na yalla kon bi nga ma déggé ballu fi nek ak torom gën jëbari seen la yaalamuna xamuñu wa daraba lahu yalla masalan lepp rajulayni ñaari gaayangi kenn ci ñoom ñaar ab kamu da aji lu la laa yaqdiru manut ala cheyin ci dara munta wax te dafa lu dafa tëx wa huwa moom kallun dafa nekk di ab yenn bu diis ala mawlaawu ci ku yorey mbiram koo xam ne dafa tëx dafa lu nekk kallu muy ak diis am ko la yenu rek gàddu la fu mu jëm yóbbu la fa ala mawlaawu kooka ay namaa yu wàjjihu fu dana jubale ko fa it pour mu dem fa laa yaati du indi bi xayrin ci yiw ndax comme moom dafa lu dafa tëx mënul dara kooku foo ko mën a jubale du fa indi dara moo ndax jaam bii hal yastawi ndax dana mën a yem huwa moom wa man ak jaam boo xam ne dafa am xel di ko jëfandikoo di gis di dégg ba yaamuru di digle bilaat li ci maando kooku ala siraatin mu nekk ci yoon mustaqimin wudaa ji jub ñii yemuñu kon nag kuy jaamu benn borom ak kuy jaamu ñaari borom du yem walilaayi ñeel na yàlla xaybu samawaati li faddu ci asamaan wala ardeg suuf wa ma amru saati déet nekk mbiru bés ak ñëwam dafay jege ni xafa xéppi illaa ka lamxil basari lu may mu mel ni géndee ko gis rek aw huwa wala ni muy dikkee àqrabu moy gën a jege inna laa yàlla qadirun aji àttan la ala kulli cheyin ci lépp lëf wallaahu yàlla axrajakum génne na mu leen min butuni umaatikum ci seen biri yaay yi laa taalamuuna fekk xamu leen cheen dara bi ngeen di juddi wa jaala mu def lakum ñeel leen sama dégg wala absaara ak gis wala afidata ak xol laalakum ndax yéen tashkuruna ngeen mën mën a sant yàlla alam yaraw ndax dañoo seetut ila tayri jëm ci picc yi musaxaraatin lu ñu tàggat la fi jawi samaa yi ci jawi asamaan maa yumsikuhunna du jàppaleen ilallaahu lu ma yàlla ndax picc mi naaw ci kaw yàllaa ko téye man nga wax ne day yëngal ay mbaggam moo tax daanuwul waaye léeg-léeg nga gis ko mu talal laf it du ko yëngal te du daanu na yamsikuhunna laa dara téewu leen lu ma yàlla inna fi zalika aji nekk la ci loolu la ayatin kaw téef li qawmin ñaal nit ñoo xam ne yuminuuna danañu gëm seen borom bayeegul xéewal yi yi nga xam ne yàlla jox na ko doomu aadama mu ne wallaahu yàlla jaala def na lakum ñeel leen min buyutikum ci seen néeg yi sàkkanan ak dal ak ak dëkk wa jaala mu def lakum ñeel leen min juluudil anaami ci deri juru kër gi buyootan ngeen di ci defi néeg ak yére tastaxifuunaha yére yoo xam ne da ngeen koy woyofloo yow ma daanikum seen bésab laxas wa yow ma iqaamatikum ak seen bésab sax ndax bu fekkee ci der yi ci nga def xëyma loolu néeg bu woyof la booy tukkee da koy yenu wa min awsaafiha ci leen bi wa awbaariha ak wabar bi wa ashaariha ak kawar gi soof ci xar lay génne wabar ci gëlëm lay génnee shaaru ci bëy la yooyu la boole min awsaafiha aswaafiha mu dellu ci xar ya wa awbaariha mu dellu ci gélém ya wa ashaariha mu dellu ca bay ya yépp asaasan ngeen di ci mën a am yérey néeg wa mataan ak xéewal ilaa xiinin ba ci ab dig wallaahu yàlla jaale def na lakum ñeel mi maa xalaqa ci lu mu bind dilaalan ay ker lépp lu yàlla bind rek def na ko mu am keppaar te jant bi ay wolte yu yu bare bari la kon bu ñëwee ba yegg si ci yow ay xob xob xobu garab woyof téye ko ba nga am ker xamal na yàlla moo indi xéewalam ndax nga am fu sedd waaye wolte jant bii dara mënu koo téye kon xobu garab mënu koo téye yàlla ne man rek maa leen defal ci lépp lu ma bind ma def ku ma am ker wa jaala ma def lakum ñeel leen minil jibaali ci doj yi ak naanan ay néeg wa jaala ma def lakum ñeel leen ak naan jamu kinnu comme li borom baqan wax kinnun wa അൽക്കിന്നു യുജ്മാലാക്കിനാൻ വജാലമുരവിലക്കും ഞേല്ലേൻ സറാബില ഐംബുബ് ടക്കിക്കും യുലേൻഡി സെകൽ അൽ ഹറലക്കവ വസറാബില അക്കിംബുബു yoxam ne taqikum dana fege leen baasakum seeni ay te mooy mbubbum koŋ mooy dox mooy mbubum koŋ ci weñ lañ koy tëgg su ko defee bu ñu lay jamee ak fett mu yem ci weñ gi mooy sarabila taqikum baasakum kadalika naka noonu yutti mu lay matal nicmatu xiwal ma aleykum ci yéen ulamaaw yi ne nañ yàlla day joxe ulum lu bari léeg-léeg mu wax ci science loo xam ne lu bari la ndax bi mu ne sarabila taqikumul xarra nit ñi dañ yaakaar ne mbuba mbuba mu tal ci sedd rek la baax waaye ndeke mbuba mu tal mooy tax saw yaramit tàngaay wi du ko lakk loolu lay wax sarabila taqikumul xarra kadalika naka noonu yuttimu lay metal nicmatu aleykum laalakum ndax yéen tuslimoon a ngeen jébal seen bopp yàlla fayinte walaw bu fekkee ne dëddu nañ fa innama alayka naka war na la albalaaxu jottali almubinu gudaa ji bir yaarifuuna xam nañ niamatalaay xéewali yàlla suma yunkiruunaha dopp ñu weddi ko wa aktarum gën jëbëri seen alkaafiruun ñoo di way weddi seen borom bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci benn mashad ci mashaahid yowm alqiyama wa ma adraka lan la la nar wan foofu mu ne bu ñu dekkee xeet wu nekk seen ab day dekki taxaw ci seen kanam nit ñi ne pat yonente bi ne pat kenn du wax kenn du yedd sa morom léegi nag ñu taal jahannama tekki tekki ko nak ne ko dinak di nak di ñew te neena buy ñëw du mbugal mu woyof waye lepp lu ma amoon ci kattan da ko yëndi ñi nga xamne nak nag nañ morom ñok seen bokale ya ñu taxaw ci kanam yalla di layo, gaay na ne yàlla ñii dey lañ tegoon ca suñ kanam ñoo ñu yore leen lépp ñoom lañ doon jaamu it bàyyi la xamul la woon sax nag suñ ne def leen nu def buñ ne bàyyi leen nu bàyyi yàlla gaa ñaangoog nag yàlla ne mu ngoog kon nag yéen it jox naa leen parole wax leen lu ngeen ci xam ñoom ñu daal di jël kàddu ne da ngeen di fen masu leen ñoo jaamu jotewuñu ak yéen dara ndem nii lañ nar a waree xam ko léegi nga seet nooy def ndax dem ba foofa ñu wax loola te yow loolu rek nga yaakaaroon loolu du baax te bu leen yàlla joxe kàddu li ñuy wax mooy innakum la kaasibuun ñu ne yàlla kon nag wax jaa ngi wax ji delsi na ci yow yàlla ne ah lépp li ngeen doon jaamu tey réer na maa ci des ñu ne ko ah, yaa ci des de mu ne weddi woon ngeen ma kon fegoon ngeen yoonu yàlla bañoon ngeen cee jaar kon de sama àtte tey mooy mbugal laa leen di jox bu tegaloog mbugal ndaxit it doon yàq yonent bi alayhi salaatu bu jànge aaya bi bayeg si fii lay taxaw dal di jooy mu ne wa yow ma nabaasu bés ba dananu dekkal min kulli ummatin bépp xeet shahidan muy aji seede summa laa yuzanu toppa digal kenn li léegi na ñeel ñi nga xam ne kafaro weddi nañ ñu digal kenn muy lay ay layam pour mucc foofu bokkul ak tribunal dem di fa lay du baax avocat yi du fa am foofa kay boo demee moom laa yu uzanu lilladina kafaru wala hum déet ñoom yustaatabuuna dee fi yedd leen baal leen yedd la ba yedd la xas nga nanguñu baal la mu ne dafa sotti wa izaa raa bu gisee ladina ñi nga xam ne dala moo tooñ nañu ala azaaba mbugal ma falaa yu xafafu déefut oyefal anum ci ñoom walaahum den ñoom yon zaroona deefi mu leen wa izaa raa bu gisee la dina ñi nga xam ne ashraku bokkaale nañu ñu gis shurakaahum seen bokkaale ya xaaloo ña nga naan rabbana yàlla haawulaay ñii dey shurakaawu naa ñoo doon suñu bokkaale ya la dina ñi nga xam ne kun naa nekkoon nañ ci àddina na da'u di jaamu leen min doonika bàyyi la falqaw ñu sànni ilayhim ca ñooña alqawla kàddu ga ñu tontu ne innakum yéen la kaasiboona way nar ngeen mosu leen ñoo topp de wa alqaw ñu delloosi ila laay jëm ci yàlla kàddu ga yow may seen keroog asalaama jàmm ja foofa lañ ko yaakaaree wa dalla réer na anhum walis leen maakaanu la ñu nekkoon yefturoona di dudal ko yàlla la dina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ wa saddoo ñu fekk an sabillahi ci yoonu yàlla zidnaahum ñu doli leen aadaaban mbugal fawqal aadaabi ci kaw mbugal bi ma kaanoo ci lañ nekkoon yëf si doona di yàq ko wa yawma nabaasu bés boobu la ñuy dekkal min kulli ummati fi kulli ummatin ci bépp xeet shahidan ku leen di seede alayhim ci ñoom waral leen min anfusihim seen bopp wa jiinaa ñu indi bika yow yonent bi shahidan nga yaa ji seede ala haawulaayi ci ñile tey wa nazal naa ñu wàccee alayka ci yow alkitaaba téere ba tibyaanan muy aji biral li kulli shay'in ci lépp lëf wa hudan muy njub wa rahma mu nekk yërmande wa bushra mu nekk di mbég lil muslimina ñeel ñi nga xam ne ñoo omatu jëm ci seen borom bàyyi na loolu mu ñëw ci aaya bi wax ne jaamia la lil xayri wa charri lépp li baax nee na dana ko fi wax waaye lépp li bon itam aaya bi nee dana la ko tuddal yàlla ne inna laaha naka yàlla ya'muru day digle bil adli ci maando wal ixsaani ak njëkk wa itaa idil qurba ak booy joxe nga jox boromi jege ñaale وينهى دي تري عن الفحشاء ci lu bon wal munkari ak lu ñu sib wal baxyi akuk réer yaidukum yàlla moo leen di waar ci loolu laallakum ndax yéen tadakkaroona ngeen waaru kon nag waaw fu matal leen bi aadillahi ci kóolëre yàlla isaatum ndéem fasante ngeen kóllëre wala tanqudu bu leen firi al aymaana ya wala kóllëre ya baada tawkidiya gannaaw ak dëram waqad jaaltum def ngeen laa yàlla aleykum ci seen kaw kafilan muy aji seede yàlla yaalamu dana xam maa tafaaluun lépp lu da ngeen def ko moom dara réeru ko ci ولا تكونوا بولين نك نك كلتي نيكي جيجين جيغا خامني نقضت فرينا غزلها كتشملا من بعد قوة غناو كاتن ان كاتن اكفري نقضت ان كاسن مصدر لا معنوي كو خامني داغا جلس سوتين nga nga nga dër ko jël dër wa moor ko ëcc nga sow ko ba mu dëgër nga xam ne sonn nga da nga ko waroon a denc ngir jëriñoo waaye nga teqar ci waat ko ba mu delluwaat fa mu nekkoon nga di ko iccaat loolu mooy coon boo xam ne amul njëriñ mooy jaamu ku yàlla loolu lay léeb wala takunu kalladina qadat gaslaha min baadi quwatin ankaasan tattaxiduuna ngeen di jàpp ay aymaanakum seeni ngéñ daxalan mu di yàq baynakum seen diggante an takuuna di nekk ummatun xeet hiya moom arbaa di gën a yokku di gën a màgg min ummatin ci xeet loolu ngeen doon bañ te loolu fëkk mu mën a am innama yabluukum yabluukum naka doon nattu leen laahu yàlla bii ci loolu wala yu bayyina dana biral lakum ñee leen yowma alqiyaama maa kuntum la ngeen nekkoon taxtalifuuna di wutee fii ci defam walaw shaa allahu bu neexoon yàlla tey la jaalakum mu def leen ummatan yéen ñëpp ngeen nekk di xeet waaxidatan wudi wenn bokk benn jubluwaay walakin waaye yu day réeral man yashaaw ku ko neex wa yaadi mu jubal man yashaaw ku ko neex wala tusalunna wallahi danañu laaj leen ama kuntum ca la ngeen nekkoon na di def ko wala tattaxidoo bu leen jàpp aymaanakum seen ngéñ daxalan mu di yàq baynakum seen diggante nga géñ lu bon rek ne danaa ko def te muy lu bon nga ne géñoon naa ko mënuma koo bàyyi kon nag jël nga ngéeñ la mu nekk di yàq seen diggante su ngeen ko defee la dana tarxiis xadamun ab dëggu bu dëggoon ci ak dëgg ci dëgg gi baada subuutiyaa gannaaw bu mu saxee ci dëgg dana tarxiis dem ci caaxaan wata zuuqoo ngeen mos suwaalu bon la bi ma sa sadatum ci la dangeen ngeen dëddu ko an sabilaay ci yoonu yàlla wala kum ñeel na leen aadaabun mbugal azimun mu daaji màgg wala tashtaroo bu leen jëndee bi aadi laay ci kóllëre yàlla sama nan njëg xalilan guddaa ji tuuti innama indallaahi naka la la nekk fa yàlla ci xeetu pay huwa moom xayrun moo gën la lakum ñeel leen in kuntum ndem nekk ngeen kay a di xam loolu maa indakum di nekk fi yéen ci xeeti am am yan fadu dafay jeex wa maa indallaahi li nekk fa yàlla nag ëllëg ci àllaaxira baaqin aji des la wala na yan na danañu fay la dina ñi nga xam ne sabaroo muñ nañ ajarum seen yool bi ahsani ma kaanu gën jaa rafeti la ñu nekkoon yaamaloona di def ko bismillahi rahmaani rahim man amila ku na saalihan lu yiw min zakarin moo xam góor la aw unsan wala muy jigéen wa huwa te moom ba mu koy def muminun mu nekk di aji gëm boromam fala nuxiyannahu dananu dundal ko xayaatan dunda boo xam ne tayibatan bu teey la wala najziyannahum danañu fay leen it ajarawum seen yool bi axsani ma kaanu gën jaarafeti la nekk nañu yaamaluuna di def ko fa ida qaraata ndem jàng nga alquran alquran fasta'iz na nga muslu billaahi ci yàlla min asheytaan arrajim ku di ku ñu dàq innahu naka cheytaane laysa loo ñeeru sultaanun benn kàttan ak lay ala lazina ci ñi nga xam ne amunoo gëm nañ waaye tawakkaluna te ñuy sukkandiku ala rabbihim seen borom innama sultaanuhu naka kàttanam kay ala allazina moo ngi ci kaw ñi nga xam ne yatawallawnahu danañu ko méngale seen mbir wala ji nag ñi nga xam ne mushrikuun way bokkaale lañu bii ci moom wa isa baddal naa bu ñu wuutalee aayatan benn aaya makaana aayatin ci palaasu beneen aaya wallahu yàlla ga aalamu moo xam bi maa yunazilu li muy wàcce xaalu ñu nga naan innama ant yow muftarin aji duudal nga ballu fi nekk ak tarom ngeen jëbëri seen la yalamuna xamuñu xul waxal ne nazalahu wàccee na alquran ruuxul qudsi jibril min rabbika mu bàyyee ko ci sa borom bi la àq ci dëgg layu sàbbite ngir mu saxal la jëne ni nga xam ne amanoo gëm nañ wa hudan mu nekk di njub wa bushra mu nekk di mbég lil muslimina ñeel ñi omatu wala qad naalamu xam nañ ne annahum naka ñoom yaquluuna danañu wax naan innama yuallimuhu naka dana xamal yenente bi basharun bindeef ndeke moom li mu daan nëbbu yépp ñu naan day dem ci àll baag day dem ca xeer wa ndeke dafay nëbboo kenn mu di ko jàngal yàlla nag ne lisaanu ledi làmmiñ wi nga xam ne na ñu ngay jeng ilahi jëm ca aajamiyun ah, kooku ab làkkat la wa te li muy wax lisaanun làmmiñ la arabiyun wuy arab mubinun wu daa ji biir nee nañu dafa am ay làkkat yi mu daan làqoog ñu koy jàngal mu ne waaye kooku ak ci làkk lay wax te kii nag arab lay wax joo xam ne ju leer la kon jooju wowu lay yàqu na ina lëjina naka ña nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu bi ayaati laay ci alquran yàlla laa yaadihim du jubaleen laahu yàlla wala mu ñee azabun bugal alimun mu daa ji metti innama yaftari naka dina duudal alkaziba ay nar alladina ñi nga xam ne laa yuminuuna du gëm alquran neena fen moom ku gëmul yàlla moo koy def innama yaftari alkaziba alladina laa yuminuna billahi ulaayika ñooñ humu ñoom alkaadiboona ñoom rek ñoo nekk di way narya bay na loolu man kafara billahi min baadi imaanihi mufassiroona yi nee nañu li ko tax a wàcc abdullah ibnu abbas nee na yéeféri màkka dañoo jël duafaawul muslimuun ammaar Yasir, Bilal, Suhaibu, Khabab, Sumayata yii ñoo doon duafaawul muslimin amuñu alal amuñu katan, wala boog bu ñu amee kàttan amuñu juddu nit bu amul ab juddu nekk ci ñu ami juddu day am lu mu ragal ñu wax ko ba tax fétit du ko ndax nekkuloon lu mooy ku jóge woon xabasa jóge fa jëm yaman juddoo yaman jóge xabasa ñooy di ko màkk di ko jaamloo loolu la woon xabaab ibnul ars dafa toogoon ku sak fett tëmëj mu tëggal la ko ñu xeeb ko ngir loola suhaybu ibnu sinaan moom dafa ñàkkoon dafa ñàkkoon ba pare dëkku fa nekk ab jaambur jóge róom róomi la woon amaar baayam yaasir nekk góor gu ñàkk jabaram sumayeta ak amaar doom ji mënuñu dara saalim benn mbaa yàlla la woon ba tax ñu xeeb ko ñu jël leen nag ñii la waa màkk doon mbugal tax na ba yeta dañ ko yeew ñaari tànkam bi tànk ci génn gëlëm benn bi ci geneen gëlëm ñu dàq leen gëlëm gu nekk jëm jëmuwaay bu safaan ak morom ma mu daldi xar ba mu xar ñu daal di jël ab xeej samp ko ca pëy ma naan bëgg góor rekk moo tax nga ànd ak dugg ci diine ji nga dugg ci kanam jëkkër ji amaar jëkkër yaasir jëkkër ji xool ak amaar doom ji ñu jël yaasir màggat la woon di ko caw di ko yeew di ko mbugal ne ko na weddi mu bañ amaar doom ji nag ba ñu ko dóoree dóor yu méttee métti te su sumayata ne nañ abu jaal moo ko def noonu sumayata moo njëkk a shahid moo njëkk a dee ci diine ñu wax ko yonent bi fekk moom it amul doole jum ko xettalee xanaa lu may mu wax waxam ju mag ja ne sabran ali yasir inna masirukumul janna mu daldi dina yéen waa yéen kër yaasir muñ leen aljanna ngeen di mujj amaar nag ba ñu ko dóoree ba dóoree metti ñu tàngal nag ak weñ safara ba mu xonq ne ko nag soo weddiwut soo waxul ne weddi Muhammad dañ la koy ñaas ci sa bakkan ak sa gémmiñ ak ci sa kanam yépp mu daldi ne weddi ñu daldi ko bàyyi gannaaw bu ñu bugalee ndeyam ba mu dee ñu mbugal baayam yaasar ba mu dee moom ñu ne ko weddil mu ne weddi ñu bàyyi ko mu ñëw nag ne yonent bi man dey bañ ma mbugalee ba rey sama ndey rey sama baay ne ma ba weddiwul ñu bala dama ne weddi naa ñu bàyyi ma yonent bi ne bi ko sa lamiñ di wax nu sa xol bi mel mu ne dëgër këng nga ca la ma nekkoon rek <coughs> yonent bi nekkoon nag bu ñu dellusee mbugal la rek dellul ca ne weddi nga yiwit buñ bàyyee nga nekk ci li nga nekkoon alquran ne man kafara ku weddina billaahi ci yàlla min baadi imaanihi gannaaw bu mu gëmee illaa man ukriha lu mooy koo xam ne forcef na ko wa qalbuhu te xolam ba mutmainun aji dal bil imaani ci gëm yàlla kooku moom loola du ko wàññi dara walakin waaye man sharaha ku ubbi na bil kufri ci kéefér sadran ab xolam ba mu dugg ci fa alayhim nekk na ci ñooñu xadabun am sànj mi ne laay bàyyi ko ci yàlla walawum ñeel na leen azabun mbugal azimun moo xam ne aji màgg la dalika loolu bi annahum naka ñoom istahabu soppa nañu alxayaata dund ba duniyaa bu daa ji jege alal di ci àlaxira waa na laa naka yàlla laa yaa di du jubal al qawma nit alkaafiri nit ñi di way weddi ulaayika ñooñu lazina mooy ñi nga xam ni tabaa allaahu linkaañ na yàlla ala qulubihim seen xol yi wa samihihim ak seen dégg wa absaarihim ak seen gis ulaayika ñooñu hum ñoom alxaafiluuna ñoo di way sàggan laa jarama dëgg annahum ñoom fi laaxirati hum ñoom alxaasiruuna ñoo di way perte su may na rabbaka naka sa borom li lazina ñeel ñi nga xam ne haajaroo gàddaay nañ min baadu min baadi maa futinu gannaaw bu ñu fitnaal leen banatu leen su ma jaadoo ñu jihaar wa sabaroo ñu muñ in rabbaka nag sa borom min baadiyaa gannaaw ga la gafurun aji baal la mu leen rahimun aji yaram la mu leen yow ma taati bés dina dikk nag kulu nafsin bépp bakkan yowma alqiyaam tu jaadilu ma ngay dàgge sante an nafsiya boppam watu wafaa defi matal kullu nafsin bépp bakkan maa amila lu mu liggéey wahum ñoom laa yudlamuuna defut defut tooj leen daraballaahu sëdd na yàlla masalan aw léeb qaryatan ab dëkk ngi nii kaana nekkoon na aaminatan di aji wóolu mutmainatan di aji dal yaatiyaa di dikkal ko risquhaa wërsëgam ragadan muy aji yaatu min kulli makaanin ci bépp béréb fa kafarat mu weddi bi anumillahi ci xéwal yàlla fa adaaqahaa mosal ko laahu libaasal juuci ko daayal xiif wal xawfik ragal bi maa kaano ci lañ nekkoon yasnacuuna di liggéey ko ولقد جاءهم ديكلنا لين رسول يننت منهم بايكو تي نيوم فكذبوه ني وديكو فاخذهم جابلين على عذاب بوغل وهم تي نيوم ظالمون وي توغن لين فكلوا لك لين بما رزقكم تي لورسغل نلين كلاو يال حلالا مديلو دغن طيبا ميلو تي واشكروا سنت لين نعمه لا يقول يال ان كنتم دم نك نين تعبدون دي جامو اياو موم انما حرم نك حرامنا عليكم تي يين الميت تمد ودم اكدرت ولا عمل خنزير اي بمبام وما وحي لاك لبلو صويف نفا بن كيرندي رندي لغير الله جي ترو كنن كرو ديال بي جرايغا فمن وتر كلور لوف نكو غير باق دو ما جي بيو ولا عاد دو ما جي دايو فين لا نك يلا غفور لما تصفو شلرنا ملل قال جناتكم شيني لمين الكذب نار جنن هذا لي حلال لو دغان لا وهذا لي حرام لو حرام لا لتفترون دي دودال ala laay waral yàlla alkadibay nar ina lejina naka yi ñi nga xam ne yeftaroon la ñu ngi duudal ala laay waral yàlla alkadibay nar laa yuflixuuna du ñu texe mataaun danañu am xéewal nag xalilan gu tuuti waaye wala um ñeel na leen aadaabun mbugal alimun moo xam ne aji metti la mu ñëw ci mushrikoona yi ak seen pas-pas yu yàqu yi mu ne wa ala na ci ñi nga xam ne aadoo yahootu nañ ñooña nag xaram naa xaraamal nañ maa qasas li ñu nettali woon ci yow min qablu mooy kula zi zufrin min al baqari wal ganami loola ñu nettali woon ñun ñoo ko ci ci yahud yi ndax mbugal leen wa ma dalamnaahum leen walakin waye kaanu nekk nañ yadlimoona di tooñ anfusahum seen bopp su may na rabbaka topp nak sa borom li la dina ci ñi nga xam ne def nañ suwalu bon bi jaalatin ànd ak réer su ma ñu tuub min baadi zalika wa aslahoo ñu yéwénal fa in rabbaka naka sa borom min baadiha gannaaw ga la gafurun aji baal la mu leen rahimun aji yërëm la mu leen inna ibrahima naka ibrahim kaan nekk na moom kenn daal ummatan di mbooloo qaanitan boo xam ne aji jaamu la lillaahi ñeel yàlla xanifan muy aji jëng walis lépp lu jëng walam yàkku nekkut min al mushrikin ci way bokkaale ya shakiran nekk na di aji sant li an umihi ci xéewalam ittabaahu tànn na ko waa daaw mu jubal ko ila siraatin jëm ci yoon mustaqimin wu daa ji jub waa tey naaw jox nañ ko fi duniya xasanatan njëkk wa inna wa ibrahima fi l axira la min alsaalihin bokk na ci wayiw yi suma waxey naa ñu wax yu ilayka jëm ci yow ne ani tabi toppal milati ibrahim yow yenente bi xanifan mu yaa ji jàng wali lépp lu jàng wa maa kaana nekkul ibrahim min al mushrikin ci way bokkaale ya innama juila naka defeef na sabtu gaawo ala la ci ñi nga xam ne ixtilafa wuute nañ fii ci moom ñu mbugal leen ci wa in rabbaka nak sa borom mooy ñi ci daan nappi in rabbaka nak sa borom la yaxkumu dana atte baynum seen diggante yowm alqiyaama fi ma kaanoo ci li nekkoon yaxtalifuuna di wuutee fii ci gefam udu wooteel ila sabili rabbika jëm ci yoonu sa borom sooy wootee na nga wootee jëm ci yoonu yàlla bil xikmati ànd ak xarala mooy fexe ba li ngay wax daal di paase ba nit ñi dégg ko rek loolu mooy xikma bu fekkee ne nga leen fekk ci seen géew ya foofa lay paase baax na bu fekkee feneen la fexeel bañ dégg la fexe bañ wax jooju dugg leen loolu nag xikma lay doon doo ñëw ci nit ki li mu gëmoon juddu ci baayam gëm ko juddu ci ak maamam nga xëy ne ko loolu fen la déedéet danga koy won rek li nekk dëgg lii dëgg la bu ko wax loolu du dëgg danga ko naan lii dëgg la lii dëgg la xam bi mu xam dëgg loolu laa koy jàngal mu xam li dowul dëgg waaye boo ne ko li nga nekk du noonu rek mu ne yu li nga nekk du noonu su ko defee ku nekk jullit alam dem rek moo tax mu ne booy woote jëme ci yàlla na nekk ci xarala والموعظة تنينك غوار الحسنة غرفت وار غرفت موي لما لي وار ناتي نك رك لما لي آية بول ما تجيز رك من لا موي موعظة الحسنة عندك تم لما لي وخ بما تي لحس سما انتري بوب اك سما بيري بوب كون لولا ماي تخ وخ بما تي لحس لن رك دا موعظة الحسنة وجادلهم nanga na seen teg ñoom bi bi lati ci dàggesante bi nga xam ne yow moom ah sanu moo gën a rafet mooy fexe rek ba dëgg génn te doo ca mer inna rabbaka naka sa borom wa moom aalamu moo gën a xam bi man dalla ci kuréer na an sabili ci yoonam wa wa yàlla aalamu moo xam bil moo te dina ci way jub ya li ma lay wax daal bu fekkee man mi koy wax gëm naa ko rek aman na dañ ko dégg waaye bu ma ko gëmul boo sàgg ne a dégg wa in aaqabtum su fekkee da ngeen di mbugal nag fa aqibu na ngeen di mbugal bi misli ma uqibtum kem la bugalee foon na leen bii ci moom buñ la tooñee ba mënoo muñ booy fayu defal lu toll ni li ñu la defoon waaye wala in sabartum su ngeen muñoon la huwa ñàkk fayu xayrun moo gën li saabirina ñeel ñi mën a muñ wasbir muñal wa ma sabruka déet sag muñ nag di mën a sotti illa billahi lu mooy mu nekk ci kàttanu yàlla wala tahzan bul jàq عليهم تي نيوم لي ولا تكو بول نيك نك في ضيق تي بن قط فيما يمكرون ليغا خامني موي منهاج الدعاء موي لي مو واخ فوفو ييب كيب كوي ووتي جيم تي يالا نون غاي ديف موي ودعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن بن بي موي وين عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم la wa xayrun li saabiriin benn bi mooy wasbir wa maa sabruka illaa billah wala taxzan alayhim wala takku bul nekkit fi dayqin ci xat bi maa yamkuruun pexe mañ lay fexeel boo nekkee ci lu baax waxtu wu ne am na ñuy fexe waaye pexe moomu bu ci sa xol xat bu ci tiit inna laa nak yàlla maa allazina ànd naag ñi nga xam ne ittaqaw ragal nañ seen borom wallazina ak ñi nga xam ne hum ñoom muxsinuuna way rafetal lañu صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نان